danañ ko tas à travers des facteurs ñu jógee ci infraction délinquance wàcc ba suuf problème lié à l'insécurité violence conjugale euh, délinquance juvénile yooyu yëpp jot nañ ko def ci diagnostic bi bu nekk diagnostic bu am solo boo xam ne ah, je pense que documenté nañ ko te suñ ci génnee tamit dinañ ko mettre tamit à la disposition ci ñëpp ñu ci mun jot tamit ñu jot ko parce que loo loolay servir voilà après nag utilité bi tamit mooy ñu xool. mais maintenant on parle plus d' agression voilà def nañ sax ba différencier ko vol à l'arraché ak agression parce que këf bi gis nañ tamit euh, phénomène buy monté la woon. voilà nga yor sa ki ñu dogaale la këf la këf lu ko yor wala kii la mais gis nañ tamit agression bi tamit tamit mu ngi fi. waaw gis nañ ni jigéen ñi daal ñoom ñooy gën a ñoom la ñuy gën a ciblé parce que ce sont les personnes les plus vulnérables léegi avant nga doon wax nit bandi bu jooy wala nga wax bandi bu làkkatu wala bandi bu nekk si benn personne du quartier koo xam ne moom moo koy moo koy nangu mais léegi jeunes à travers leur communication da ngay gis ne sax dañ naan man bandi la voilà yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne tamit moo ngi joué au niveau social parce que socialisation dafa baax te day joué te ñu ñu bëri duñ si bàyyi te noonu lay monté